nekk dans l'administration pénitentiaire amu ci kàngaam goo xam ne waroon ne mën a jiite. mi ngi mel ni nga jëloon un gars de de je ne sais pas de de l'administration pénitentiaire nga yóbbu ko ne ko jiital mu police bi ñoom il le vivait comme ça cest dire noonu lañ ko doon dundee. mu mhm. naqar leen trop nag. Mhm. et de tout temps ils l'ont mhm. du ñoom du lu ñu mës a nëbbu de de tout temps ils ont toujours dit nañ leen indi koo xam ne ñoom ci ñoom la bokk. parce bopp ah. mbir mi sax. moo tax nag le fait que aujourd'hui ñu indi leen koo xam ne moom c'est un des leurs loolu moom vraiment non seulement ñoom dañ ko rafetlu mais ñun sénégalais aussi dañ ko def parce que jàpp naa ne c'est une injustice qu'on de réparer et cette injustice là ils ont toujours vécu mal man dama daan waxtaan ak ay nit mais ñoom seen wàll bopp loolu dal leen a mës a metti et ce ne sont pas les personnes ressources qui manquent la preuve aujourd'hui ki ñu fa teg que autorité yi yéex nañ ko def peut-être que ñii aussi bon ci ñii sax la commencé. Mm-hmm. mais ñi nga xamante ne ñoo leen fuutu woon ñoom ils auraient dû commencer par ça. Mm-hmm. ils ne l'ont fait aujourd'hui Diomaye en tant que président vient de réparer une injustice. alors alors beneen ci eh, ñu gis ni ci wàllu coowal suuf li fi mu toll nii eh, mel na lu ñu tàmbali ci wàllu ay teg yoxo nit parce que. dans la semaine puisque on est en train de passer peñ fa l'actualité de la semaine Serigne Saliou ñu dégg dans la semaine un homme d'affaires ministre mhm. conseiller à la présidence même donc ñu dégg ko ci coow lu takk suuf muy Doro Gueye ah euh, chèque ay un milliard ah, bi ni niñ ko xaymawee ci gàttal sax mooy ay ay waroon a jënd ay wala terrain ay vingt quatre terrain euh, ci ancien ancien aéroport bi ñu nekk suñ ginnaaw Euh, ñu ñu mën ko tollale ci koppar cinquante million par benn benn benn terrain déjà coow li dama la ko résumer pour nga mën cee ñëw mais mais bi nga déggee coow li est-ce que euh, yow ak yi nga def ci sa journal quand même euh, bëggoon naa nga indil ñu ci ñun ay leeral yu waaw yu yu mucc ayib daal tey ci ji bi boo bëggee dégg dégg gis nga le foncier dans ce pays mhm. président Diomaye déjà il s'est s'était rendu récemment à Mbourkat à Thiès pour constater de visu li nga xam ne mu fa am mais hmm. man je conseillerais au président Diomaye que bu fa ñëwati. Hmm. bu mu ànd ak kenn. mu dem moom donc. waaw président boo fay demati bu fa bul ànd ak ñenn ñi. parce parce que am na ñoo xam boo ànd ñoom am na femme doo fa egg. dañ koy dévier. moi juste ji bi. non yow waaw moi je suis allé foofu xool dem naa fa ba vingt et une heures ci guddi. je suis allé sur le man xam naa bu baax la dafa nekk ji gis nga li ñu doon wane ni télé nii mais ça c'est est-ce que xam nga ne jibi seddoon nañ ba ay suufu pont yi nga xam ne fa ndox yi jaar foofu sax dañ fa samp ay piquet lan waxaatal li gis nga tali yooyu nga xam ndox yi pont yi dañuy pont yi ci suuf yi noonu nga xam la ndox yi jaar noon noon boo demoon tey pont boobu nga xamante ne moo jógee mooy mooy jaar mbuurkat ba gën a ji ci tali bu tali national waaw suuf pont ma ne la boo ñëw suufu pont boobu pont bi ci boppam foofu dañ koo jaay jaay nañ ko. <laughs> nga dem tuuti ca kanam ne nga dugg mel ni ku jëm ci usine cimenterie bu marocain yi. foofu nga xamante ne ay kàmb la nga xam ne il paraît que Thiès seen ndox yëpp foofu déversoir la. lay foofu lay dugg sax. foofu lay dugg ah. boo ñëwee fekk fa ay piquet foofu jaay nañ ko ci fii. sax à dire que li ñu li président ñoom li li ñu waree noonu non. président président Diomaye boo fa ñëwti vraiment dem fa. te bul ànd ak yenn nit ñi bu tal say quelque kii rek xool nga defa benn incursion nga xool te nga duggee ba ci biir nag parce que boo ànd ak ñenn ñi doo yegg parce que ña lay wër daf ci am ñoo xam ne nii bëgguñul yenn yi nga gis ko te man lu mu xool lu leer laa la wax te boo xoolee délégation bi man jàpp naa ne am ñoo xam sax délégation boobu waruñ ci woon bokk parce que bu ñu ci bokkee président bi li mu waroon gis gisu ko te moom li mu jot a gis rek pour par rapport la nga bàyyi. maanaam bu jisee lee xam. non ma ne la la nga la nga gis du dara la nga gis du dara boo duggee ba ca biir ba ca tool ya ba ca kàmb ga di nga xam ndax àllu Cees boobu yëpp ndax jaay jaay nañ ko la jaayuñu ko. Hmm? jibi foofu dara des fa. dara dara dara dara dara dara dara ja dara des fa. c'est compliqué. xam nga loolu déjà c'est un problème. Hmm. nit ñi dañuy toog di jël suuf si di ko jaay comme ça impunément. te teguñu ko ci kay teguñu ko dara gis nga même mbuurkat boobu nga xamante ne nit ñi jot nañ ci commencé taw foofu man de ça je le dis à Moussa Balla Fofana en tant que ministre de l'urbanisme soo bëggee foofu ñu def fa une nouvelle ville kër ya fa nekk yëpp nañ ko raser ña fay seen i kër nekk na ngeen baal ma parce que xam na c'est pour des d'abord pour des raisons de sécurité pour des raisons de sécurité d'abord ak aussi vraiment pour un bon cadre de vie parce que mënoo d'accord des quartiers naissants comme ça nit ñi tabaxee nu mu leen neexee. des fois da ngay dem ba càng dugg ci impasse ñiy tabax fii ñu am na ñoo xam ne dañu tabax ci digg yoon bi. Mhm. parce que niñ ko jaayee la da ngay gis ku ñëw rek ku ñu jaay rek nga tabax ku ñu nga mhm. tabax comme si les services de l'urbanisme newuñu fi te pourtant ñu ngi fi ñoom peut amuñ ci responsabilité mais ce sont les spéculateurs fonciers ñoom seen bopp. ils sont à la base de tout ça loolu jot. ci ay at ci kanam. mais moom laa la wax problème yu du jeex ñëwaat. ñu nekk di waxati un quartier naissant boo xam ne amul assainissement amul cest ya dire y a absolument rien parce que nit ñi dañu ñëw rek tabax. ki nga foofu nee leen bu ñu bëggee lu baax xool nan ko raser waat ña fa nekk bu leen doon joxaat foofu seen i kër joxaat leen ko bu ñu leen di indemniser ñu indemniser leen mais je dis pour le bien de ce pays là parce que loo xam ne ni day dem ay ati at la il faut songer au générations futures. donc quartier yu bees yi ñuy tabax yëpp dañ ko war a tabax selon des normes architecturales yoo xam ne kenn mënu ko dindi. léegi revenu naa ci kaawu Doro Gueye. maintenant ci kaawu mais ce n'est la phase tout simplement immergée de l'iceberg gis nga li xew ci terrain aéroport yi mais c'est un véritable scandale. Hmm. te bés bu ñu publier liste ñi nga xaman ne ñoom ñoo am foofu. tu vas dire encore c'est le même cercle. jibi ñi am foofu ñoo nekk ci littoral bi ñoo nekk ci littoral bi. ñoo nekk mburkaat kon réseau la. non c' même cercle. ñoom la xool c' est même cercle man genre ai ñoo xamante ne nii ci littoral bi am nañ fa te am nañ encore ci aéroport bi même aujourd'hui man ne serait-ce pour des raisons stratégiques aéroport bi tout tous les bâtiments yi fa nekk dañ ko détruire ba pare defaat ko aéroport parce que c' est impensable de voir une capitale qui n'a qui n'a qui pas d' la preuve récemment bi fi affaire bi amee fii euh, aéroport AIBD. Mhm. mooy. waaw mooy. accident mini boobu noonu waaw. mais on était obligé de dévier les avions aéroport Gambie. te loolu du yoon. du yoon cest à que aéroport bi sax c'est un aéroport stratégique jibi ah raison pour laquelle moo tax ma ne autorités yi nañu xool nañ ci am seen flag fayda ña fa tabax yëpp non seulement on arrête les constructions mais il faut détruire toutes les constructions yu nekk foofu ba pare defaraat ko en tant que un nouvel aéroport loolu mooy dëgg te Sénégal dinañ leen ni jàppale parce que aussi il n'est pas question que un groupe d'amis de copains de coquins ñoom seen wàllu bopp jël suuf aéroport bi seddoo ko ñoom seen biir. oui dégg nga li ñu la wax. séddoo ko seen biir 24 terrain. non séddoo ko seen biir. cinquante millions par terrain. te gis nga loo ci xamul nag sunu mbokk yi tamit am nañu ci am nag. Hmm. presse yi ah kon moo waral noppi noppi. Ah. <laughs> am na ci am na ci am na ci am na ci télé yoo. xam ndax sa xarit bi nga doon tudd. léegi moom am na ci télé yoo xam ne nii débat boobu du fa jib jib de. Hmm. Ah, am na télé yoo xam ni. dañ fa am cité tele ah am na télé yoo xam moom débat coowul ay la boobu du fa jib du fa jib de doo dégg mukk ñu ne toj leen toj leen foofu wala nangam ak nangam. ah bon ah, que dañ ci am parce que ñoom dañ ci am. réew mi naqari naa rek la de. ah voilà le problème du Sénégal euh, c'est-à-dire que da ngay toog di dénoncer benn affaire. dëkk bi la toog nii man jibe may doog di ko dénoncer fii fii. ñu koy jox mu benn terrain bés bu ma ñëwee fii ba mu posé question ci affaire bi. du ma jox waaw nga dévier waaw. où est te loolu moo xew foofu da nga ciy coow ba pare nga xëy waaye nga kër coow ñu xëy ñu daggal leen fa nga nga noppi donc moo tax mën ne door dafa wane toq ci li nga xamante ne moom moo nëbbu. mais mais bu ci demee ba ah. mel ni kuy avoué mel ni ku cité le président Macky donc ah. man foofu. ah mais mais a de quoi avoir waaw. mais yow le parrain nag de tous ces gens là c' est aussi man y a du régime qui m'a dit mu ne ma coowul suuf boo fi dégg Macky Sall kon ba muy wax naan li nga ko indil ci ay dossiers yu. ci bëri yi coowul suuf la kon boo xam ne fii. romb xamoon na li xew parce que Macky Sall ci boppam daf ci am. moom avènement alternance bi Macky Macky Sall bi muy ñëw moom terrain bi nga xamante ne moom la ko moom lañ ko joxoon avec euh, euh, du temps de Wade mais on était même allé jusqu'à lui dire que terrain boobu na ko na ko séddewaat il avait même promis aussi dans le cadre de de notre organisation La Perle mais mooy bi ñu ne dañuy dañuy récupérer l'ensemble de terrains yi nga xam ne ñoo nekk ci littoral bi moom lañ ko daggal fële ca biir mais les gens là sont allés le voir pour lu demander de de restituer cela mais mujjul fenn. te xamal lu ci metti aussi mooy dans ce pays là non jibi hypocrite yi bëri nañ. non bëri na de bëri na de y' a tellement de gens jibi. Ah, yuy yuuxu xool fii littoral bi littoral bi. te ñoom alors ñoom dañ ci am. ñi wax ni ci. non maa gis fii ñu toog fii yuuxu yuuxu yuuxu yuuxu xool bay bëgg a dee ah littoral bi il faut nangam nangam nangam nangam jibi j'ai fait récemment mes investigations ko doon wax. man gis naa ñoo xam ni. waaw man de am na benn nit. boo xamante ni nii on m'a montré. mais man la ay papiers yu leer naññ. man la jibi man la kay li ma xool preuve à l'appui man waxuma. keroog bi ma déggee muy wax di dénoncer loolu. et c'est ça le drame dama tikkee sax. man man man man samay bët baaxul. gis nga littoral bi ñuy wax nii dañ koo séddoo. non c'est compliqué ce bi ñuy wax nii xool dañ koo séddoo. moi bi vu aujourd'hui des candidats à la présidentielle seen lañ fa am ma nga ne ni ñu mu taxaw. alors la présidentielle waaw bii passé alors que yow yaa ngi ñëw taxaw ne da ngay demander da ngay demander les suffrages des sénégalais alors que yow wóor na ne l' acquisition de ce terrain là wóor nga ne c' est pas une acquisition acquisition légale. voilà maintenant les problèmes de ce pays gis nga nag ñoo ñu nekk ci littoral bi ñoo nekk Mbourkat ñoo nekk ñoo nekk dans les autres localités ñoo nekk fépp c' est le même cercle door nag moom c' est un coup de pied dans la fourmilière. Hmm. waaw c'est un coup de pied dans la fourmilière boo dooree sa tànk da gis yeneen xorondam dinañ génnaat. Hmm? maa la wax loolu bu ñu dóoree bu waax boo gësamee dooro boo gësamee déjà dina balancé na Macky Sall. waaw ah. mais yomul foofu rek peut-être que. peut-être que ah, ñuy wadd dina bëri. mais moom laa la wax noonu nañ ko gësam rek. buñ ko gësamee dinañ gis dinañ gis ndax dina am lu wadd ak lu dul wadd. dina yoo la ah, attention. te moom de nante la moom daa ñëw rek wax. ma ne la. ñiy wax dina bari. mooy du ma ci du ma ci du ma ci. léegi nag léegi nag tey léegi nag tey ñi ñuy indil coowul ay kàndeeg yooyu yëpp xamal lu ñu bëgg ñu fàtte foncier bi. Hmm. ñiy wax nan kànde nii ne foncé bi lañ bëgg ñu fàtte ko mais nag kenn du ko fàtte de foncier bi fàtte guñ ko parce que foncier bi moo ñu gën a soxal. comment faire pour récupérer le foncier ñiy toog fi yëpp naan ay waaw nii général Kandé no Kandé jëlal ko ngeen te ko fee le véritable problème de ce pays là c'est le foncier te foncier bi moom danañ ci wax mu neex leen mu naqar leen foncier bi dinañ ci wax. sëñ Sall finalement nu ñu réglé problème mu bi problème mu foncier bi. mais nu ñu ko doon réglé toutes les acquisitions illégales da koy jëlaat xam nga tu sais l'état à la loi avec avec avec avec lui ñi fa am ay acquisitions yëpp yëpp yëpp yëpp c'est des acquisitions parce que loo xamante ne nii gis nga. boo jëlee décret bi nga xam ne mooy régir le code de de de du domaine de l' li mu wax c' est clair les constructions là au niveau du du du, du domaine euh, maritime c' est des constructions précaires et révocables. Mm-hmm. ba keroog muy am benn décret boo xam ne de déclassement boo xam ne dañ la koy bindal mu ne mën nga fa def construction en dure parce que tant que yow dañ la defal loolu da ngay tënku ci loi bi te xam lu ñuy wax nag construction précaire euh, comment dire révocable. mooy loo xamante ni ji bi heure boo ko fa bëggee dindi mën nga ñëw dindi ko fa sans problème. Mhm. mooy nga ñëw def fa say tente def fa say cabano nga xam ne loolu moom bu ñu la waxoon en quelques secondes mën nga koo rocci lépp teg mais quand tu fais maintenant une construction en dur mais loolu pour nga dindi ko problème lay nekk surtout au surtout au bord du littoral. waaw mu ngi noonu nag moo tax ma ne nit ñi aussi tënkuwuñ ci loi bi léegi nag l'état à la loi avec lui tey bu ci code de code code de l'état rek du domaine de l'état ci tënkoo rek. toutes ces constructions yi am ci ci euh, domaine euh, maritime bi yu ci bëri day tëb quand tu as la loi avec toi. Mhm. bul am leen loo ci ragal surtout que tu as le soutien du peuple. Ah loolu mooy dëgg gis nga lii nii action yi bu ñu ko doon def tey les gens vont les applaudir les applaudir léegi nag dina am quelques brebis galeuses yoo xam ne ñoom seen i intérêt la ñuy sàmm ils vont sortir encore dans les journaux. pour dire way diw li la am diw li la am diw li la am nangam ak nangam ak nangam nangam c'est histoire de Bah Diakhaté laa koy sorti temps yi ku nekk mu tuumaal la fi loolu aussi c'était dans le même registre yooyu Bah Diakhaté doon def c'était dans le même registre c'est-à-dire c'est pour divertir les gens ñoom chaque fois dañuy bëgg a jël benn affaire teg ko pour nit ñi jël fa braquer fi seen i bët ba pare en laissant les véritables problèmes et les véritables priorités de ce pays. kon lu ñu soulever lu ne rek pour fàtt beneen. lu ñu soulever dama ne Bah Diakhaté ba muy wax. c'était pour que parce que bu ñu waxee mën naan woy Ousmane Sonko amoon na terrain nangam am na terrain sangam ak sangam xam nga toujours li gën a bon mooy justifier un mal par un autre mal ou bien une injustice par une injustice loolu ñoom nañ ko bàyyi donc finalement dañuy dem ba ñoom seen wàllu bopp sax ñoom dañuy jàpp ne kon ñoom ndekete def nañ njombe wala ci ñu nekkee du dëgg parce que bu ñu la jàppee ci lu dëgg nga ne waaw du man kese du man kese yow li jëndal sa bopp ba pare mm-hmm. donc les sorties da baa jaxate tout ça cette histoire sur l'homosexualité ñu doon wax nangam naa ngay xool c'était pour amuser la galerie daal di éloigner les Sénégalais sur les véritables problèmes de ce pays et les véritables problèmes de ce pays le premier foncier da cee bokk foncier bii ñuy bañ ko ko tudd les nit ñi dañ ko tudd kooku moom buñ ci tegg seen tànk tout ce qui leur appartient pas tout ce qui appartient aux gens surtout ñi nga xamante ne ñooy waa wakaam yi nañ leen leen delloo seen suuf yi mooy dëgg doomu wakaam yëpp dañ leen dàq dañ leen faa dàq. ngoro ngi nii. man dem naa fa mais benn kabano la fekk foofu ko xam naa ndeysaan dafa résister ba alternance bi fekk ko fa. mais dañ ko doon yëkkati parce que il paraît que même foofu la famille Faye Sall laa ñoom ñëw nañ foofu ba koy ba koy waaj a tëbal mu bañ. yaa ngi gis donc nag loolu mooy wax bi waa wakaam yi fañ daan dem di fa def seen petit commerce yi di fa def seen kii lépp tey boo demee nëbb nañ leen ko au point que mais ñenn ñi sax. dégg naa seen i nerf la ñu wutoon ak teg teg leen foofu ba kenn mënul dugg ci kenn mënul doon accéder ci plage bi tu penses que ça c'est normal ci ñoo xamante ni ay wàllu yaan dong lañ dañoo ñëw fekk fa waa wakam yi ba pare bëgg leen bëgg leen faa yëkkati. c'est désolant ça il faut le refuser. lii kon mën nañ ko jàppee ko ah. haute trahison. la. ma ne lii ñu fi def yëpp ñi fi jot a jaar. mais haute trahison la ndax war war naa mën a pousser pour ñu signer loolu di pétition bi gars yi teg ci taabal bi. mais ma ne la Macky Sall doit rendre des comptes à Macky Sall dafa tooñ waa Sénégal loolu mooy dëgg Macky Sall dafa tooñ waa Sénégal pendant tout son règne son règne là s'est émaillé par des scandales loolu mooy dëgg Macky Sall ci boppam moo tooñ waa Sénégal dafa tooñ waa Sénégal il doit venir rendre des comptes lan moo tax mu pare rek dem dem Maroc tëdd fa loolu mooy wax bi. du du hasard. non c'est mais Macky xam na ne mënul dëkk ak nit ñi fii. Mm-hmm. yow Timas Macky il serait en sécurité tey bu ñoom fii ci réew mi fii nii nii moom xam ne il ne serait même en sécurité moo tax mu daw génn mais il devait être là comme tout le monde parce que njombe yi fi am yëpp moom c'est lui le parrain tous les scandales financiers économiques yi fi am yëpp ça porte de Macky moom ci boppam la hmm. moo tax démocratie bi ñuy wax ni quand les gens